consomar, ¿se lo bien? Yamno diga. Mhm, mala diga, Wow. Thank you. Now, I think you are good to go. I eh, found Okay. Uh, okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. okay, Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Brother Nyo, the nuna na and Labuba, Haba, Haba, Dilaw, welcome, uh, Session 1 and 1B. Thank Uh, you. comme uh, ni ko la ko waxee rek, 1 and 1B ni ñun nekkul ne ñëpp uh, a fi dee ñëw tamit. Uh, waaye tamit dañoo seet ñoo xam ne ñu ngi def lu baax, ñoo xam ne ñu ngi kontaan loo nit yi, ñu ngi bég nit yi, oo ñu ngi def loo xam ne nit yaa ngi seen njëriñu. Ñu door laa isi fii, ñu waxtaan naa yow, ñu wax tamit ñoo xam ne am nañ question ñu bëgg ñu laajte la ko eh, ñu waxaale la ko eh, so moo tax nag yow eh, bu ma la ko waxee tamit mm. nga yombalal ma ko bu baax a baax a baax ah mm. dimanche la ñëw na waaye mm. bala maa dem si kanam foog ma wax la loolu jërëjëf ah, you know many times daal yàlla comprendre na ko bokk noonu bàyyi nga nuyu nga nuyu gars rek après ñu dugal si affaire bi fat fat ñu mën a waxtaan yu bari bari bari ok asalaamaaleykum gars yi man maa ngi tudd Abdoulaye Korka Ba ñëpp na ñu xamee ñu ma xamee Korka maa def programme boo xam ne Korka si toog ak CTV programme bi dama di jéem interview nit yi di la random question about dëkk so basically lolu moo nekk ak suma dox nga xam naa mii yu bari xamee ne nag ak yooyu noonu ma si pour yoo xam ne yu e bari nag bot e nekk di yëngatu man tamit maa laa jaajëfal trop si ma fi because of uh, Gambia you always celebrate people when they are dead so but xam nga ak te am mm-hmm. na ngay di li liggéey télévision bi la quoi ba yow comme ba def yoo tamit coow ni la xam na ku nekk journaliste boo la dafa bitam yow la nga bëgg So you, you always say good things about people and everything. So thank you so much. I'm i like you, but i Make us much I know, I know. ay korka loolu lu tax na Mary, mairie mairie yu ma compliment korka loolu mooy problème bi si mairie daal balaa si ma wax ak la loolu mairie yu bari jox nañ ma compliment hmm. ndax seen compliment yëpp naa la ko wax tey waaw ah ñu ne kenn mënul laa daw ñu ne boo bëgg a am di ko am by force kenn mënul laa daw. waaw kenn moom man moom kenn mënul maa daw kenn. kenn mënul maa daw waaw comme noonu la rek thank you very much gis uh, uh, nañ ni yaa ngi def lu baax a baax a baax ay kooku rek ñu ñu mën a dugg si affaire bi rek am naa yu bëri dinañ ko loolu laal after uh, waaw. ok su ma bëggee wane ne kooku koor ka sa jaar jaar du la wax ne kan mooy koor sa jaar jaar naka la ba tey ok ok Okay ma ne korka ñu bari léegi lañ xam korka like comme hmm. programme boo dee famous programme boo dee def moo nekk korka street talk ñu bari foofu lañ xamee korka waaye korka sa hmm. jaar jaar hmm. eh, ba egg eh, korka street talk you know ak idea korka street talk naka la ñëwee because loo xam ne la Gambien yëpp a ko appreciate xam nga ko xamuloo ko ñu nekk abroad sax appreciate nañ ko yeah exactly exactly waaye ya. su ma jaar-jaar mooy I eh, am born and raised in Bakaw eh, waa la laa foofu laa juróo foofu laa ya, yaroo sama yëpp foofu la foofu mm-hmm. eh, laa demee school tamit after ma ma jegalee Gambia high so but maa ngi I am intermedia since officially I am intermedia since two thousand and eight laa door media bi ya. but depuis two thousand and ko dama daan toppa toppantu gars yi mooy time yi Zinata production nekkoon Bakaw Eh, minnoɗa ka tariyen am sahul naka sahul jasin eh, eh, ka tariyen non ñom modi musa sisse gitu, mo ngi america legi gitu. ñom mm-hmm. la don topa dal i was very young by then 2003 so 2008 ci unit unique fm tv unique fm bu mu idée parce grade 12 no maa grade 11 so bu mu idée man dama daa dem foofu nag di leen booraadu di leen jimal ataaya ak yooyu noonu so après si ci la ci lañ ma boole ak kenn ku dee Mike kuna ñu xam bi ma demee Spirit Mike foofu laa doon trainer caméra man professionnel su ma caméraman la ak éditeur loolu mooy suma liggéey yaa ngi ma ko involve naa tamit yaa involve naa in network gi mu ngi mu ngi xaw yeah, sig tuuti Yeah. loolu so, so it is basically, uh, okay, so, so basically, it is 11, uh, in 2016, uh, I, I involved in a movie called uh, uh, uh, uh Lini, uh, Return to Grace. I was I won the best uh, picture picture award. So involved now in a couple of movies, made Timbuktu that Timbuktu, uh, uh, Gift from Babylon. I was the assistant cameraman. Things you know, we're bringing in international award. Mirror Boy, that famous film Mirror Boy, uh, involved now. So currently, man man a video correspondent for France 24 in the Gambia. Uh, the wife and my yellow CTV as a cameraman, editor, and presenter. Yeah. Wow. So free talk, free talk, yeah, free talk means dama toog wan bi rek dañ déggee juma mana ma benn boy bi def def vraiment la ci liggéey bi rek ma jël caméra ma ne dama simba ma dama film dara loo xam ne ci twenty twenty minutes la ma ñëw ma di ko ma booba ma jox leen ko ma ne ah seet leen ko leen amee airtime te ngeen dugal ko bi gars yi seet am na fa airtime ñu dugal ko time boobu na baaw la ñu play ko rek mu doon viral eh maralda. Hmm? Okay. Wow. So, so, so, so no, no, no. Yeah. Manam, end of video re mutam viral, so motor street to ginol la ñewé. Wow, dem ba exactly. Dem dem to record video bi. Euh, every ko pare ñu play ko rek ak play on air.

waaw ah, ku nekk def ko dee live léegi léegi nekk comprendre te ba léegi ñëpp dem xam man président la te fekk ne la actualité léegi mooy suma liggéey te bu bëri suñu ma gisee maa ngi téye kon dañ lay def yi tamit te sax mu ne foofu laa ngi ok eh, waaye comme sawa bi yenn saa yi mu ngi écho de xamuma lu xew comme yow sax nekkut network bu side bi de ok ಜನ್ಮದಿನ Okay. Okay. Uh, yeah, okay. Eh, uh, Mara- Kuna buga na Mhm. wa okay, si afere street talk bini, ñu duga fofu direct. Street talk bini you Gambia ni yépp xamee nañ la. Okay. am difficulties yena saa si after the programme hmm. bini soo génnee hmm. si hmm. yeah, remember I'm difficult. Remember I'm telling a lot sometimes. Mm. Because di they feel me, when they feel me, when they dem alam interview, they amun ko, they dem they dalam disgrace, wala they dem dini. Also tamit, uh, physical attack, or more attack physically. Yeah. maybe level is you know uh, time they win uh, yeah, So time they yo yo support your party B, support the party B, support your lead. So leave online time to time. Uh, second uh, moment, I'm just sticking to my work. pour l'instant euh, difficulté moo dee gën a am mooy mooy su nekkee maa ngi record pour nga am koy interview sax problème la dañ ma dee gis rek su nekkee dégg sax dañ ma dee difficult pour mën na am content euh, léegi loolu moo tax léegi ma dee jékki-jékki rek man cameraman bi réelal rek loo am rek ñu am ñu jël ko loo am ñu jël ko so plus tamit yeneen difficulté bi di koy nekk foofu mooy sai ma off duty daga mo ko madi def ko ko ko ma ngi def sama soxla nga gis ni dinga jël no ya xaw ma leen xaw ma leen rek one plus one two plus two li ma la tek ko ga xamne ma ci muddi wala nek ma ci muddi nak so li ñu dama ko def encounter wala ma ko ko na bu ndé rek mu ngeen dawal moto mu wacce wéram rek mu naan lan ko ko ta ci Basically, I think so far, uh, Creep of Mekana Shobo Hamene is one of the, the, the longest show, Gambian Shobo Hamene, movement in standard, mm-hmm. since being there. So, moving Costa, even during COVID, moving Costa stop because more than the level I'm used entertainment, even though they the on Monday movie, the Sola Bohamen, I'm already five years Bohamen, come non stop. Gambian TV shows mostly, three years the best stop. abi moni depuis bun kate mu continue mu grow every day so te te te hamna comme comme people like it, people appreciate mu ko na ma tolle sama ne beji duma ko dofa because you are getting too much without not getting much uh, by my by on a time but after so you need to be nit ñi nga dé respecté ñu nga dé buggé ñu nga dé laajé bu ngé ci ñu dëgg dëgg ñu ko di public something so bay nga dem nga nga nga continue so waaw okay Uh, because because calling our no man so experience na for this because the man this ah of mula daw ay man daw do I pa na man daw mang lom birds na sikat ay जैसा मेरा अंदर बात है yeah so gaya ñu ngi la doon daw waaye nekk na loo xam ne man suma bopp na fee ah, suma jabar every time dafa hmm. woon ne kooku ndax upload, you know kooku ndax dugalut kooku YouTube nekk na loo xam ne la ku nekkul mm. Gambia sax appreciate na ko because yaa ngi smile si facing nit mm. mm. you know so yow ta uh, beneen question because man artist yi maa ngi di la gaay too much waaye gis nañ ne korka tamit am na yeneen artist yoo xam ne ñi nga feeñal xaw ma ndax yëg nga ko xaw ma ndax yëguloo because am na ko kooku mus naa ko invite fii nag waaye dinaa ko because due to some technical problem after morning, ko continue show so yo landa de feel ah so just so so so faso yo yo hakune you know nga tok ñu ne korka mota ki feñ o korka mo fi def li ban feeling nga ci dé am nga dégg nga ba maa ngi jël exemple boy almost Bamana diga, Mara diga. Yeah, I feel I'm very happy. Look at impact na bara kini. Uh, mangi jeng example ki day day dini itu ra grill, grill, grill. Dama dem record ni rek rankam. Mata so mong ci digi. Mana kan hana rapa, na wa rapa na. Ni ñew eh, mu mhm. rap. Ci ko ak comme rapa yi ci ni. Rek ak ak rek ni rek ma edit ko ma ni ni play ko rek. Buñ ko play. Aka aka tribu. Ko na sama jiri di Senegal. Comme Senegal ñu na mustenna jiɗi mi yamna korka kala artiste jini kono waɗen onon dema programme ɓutuɗa ci internet bi ñu mino kimo yo teg internet bi right now olal ɗum ko ya ko ko ya ko kos yeeya kas de boy mu ci so ɗoma contane boy ko boyi la jaar bu bu dem mu ko record la jaar yu mu nega big time ñu ko aussi show so I was I was I was very I'm going to talk to Addis Belmak dagiri boy ka en made ko korka boy kan ga mani kan ga mani gis kan ga mani mana kan mana ne man kuma ke in da da kuma ta sel rek am tan so so so so so famous in that sport lola so so famous ke lola ya bot dima jog madam akil special pour interview la bot tun ko ko dara be dia nak kat to to mostly tin na ju bari ñoo xamne ne ah ah dembe dembe ñu dugana ci musique because lolu nonu bena ñu di three three or four four minute video boo xam ne ne rek dafa def viral ci internet bi so which I which I appreciate exemple tamit yeneen xale yoo xam ne ne dañ doon wéy national anthem ci Mandinka dama euh, ma ma tegal leen may gaay wéy national anthem ci Mandinka man dama defee tàntal ma ko doon ba ama télé sama kër man ak saana so ma ñëw mu ngi trending internet bi di dem di dem di ne ah gaay di gërëm ci kër di gurun student di gurun ah, education system kan? kan, mana kan tango man nilai itu pour suma life ak li suma job bi ma defar ci gambia ma defar ci nit te ko dama ci yaahandi lolu motax dama do gis ci ka ken dama di gis ben hudu nit wala dara ma def ak and ak ma bay ko ni te man buguma kenn saaga buguma tamit deglu kenn koy saaga so lolu motax man ma nek ma ma defé ko ni so suma xamé ne yow mi bro tay duma mëna impact sa life ci suma job baru baru baru malah malah malah ci sama job comme di continue leen nekk di def vraiment la day fulu wax musuma gis ci indaay bit koo xam ne ne nekkul def dara in society understand so noonu la rek waaw ok uh, beneen bi like yow uh, as a celebrity huh? we all know normal life no, but, but normal life in Gambia you. ndax yow fu mu nekk nii dee mun a def dara loo xam ne sax euh, mun ngaa nobot. waaw waaw nga am nga am nga Gambia people should understand something being being gis nga celebrity life soo ko bëggee dunda Gambia bor moo laa rey bor ak ñaan on man am na saa duma dee dem restaurant duma dem club soo ma gisee si suy Gambian xamal ne dama dem rek pour dugg fa am maa ne dama bëgg dem xool rek lu fa nekk te ñu ba si koona bi nekk wala ma dem pour I always cut my clothes according to my size so nit yi duñ ma gis si bari suñ ma rek job la wala su ma rek la so te tamit man dama dee post lu nekk man ah, suma famille doo leen gis online su ko bi ko ñu ma dee àndal sax dañ laa gis ci caméra ñu ma dee àndal sax dañ ma laa gis ci da ngay am na yoo xam ne ne job bi la am na yoo xam ne ne private life la gis soo soo soo dee dugg ci kaay jàmbur wala ci business jàmbur foofu la ut yoo tamit suñu laa gisee but mun naa mun naa dox prix ma dem onotaan la because ku ma ne ak yooyu noonu because tooñu ma kenn kenn tooñu ma ku gis daf ma dee apprécier waaye dama dee moytu yooyu noonu so loolu moo tax always dama dee bëgg a nekk feneen ma nekk in a positive way even though aadama yëpp am mutu ba dama dee try manekas manekas masa itu cuma kona because hanna family juga jadi I'm from a very poor family very very very poor kona sana so ini mah semua kata semua ini struggle janggal mah karena atas ini because of man cuma job walau cuma si ya celebrity life sah deh mikok saja lah kona sana so lulu mau tak ilut keep keep it in a low profile kau mau di mana kau mau so lulu lah so lulu mau so yu bari ujundoo nit yi nit suñu la gisee maa nga def yeneen njublan yi xam naa ma day ignoré rek dina xam ah kii bokkul ci yooyu yu bari yu nga def lu bari si lu baax la bi business yi hmm. jàpp ok eh, you know ku dégga yow <laughs> ku dégga lii tey ñu bari xam dinañ si jàngal lu bari bari bari especially ah ñoo you know ñu ngi hmm. foog ne there while they not there yet so it's very important Why? beneen question bu ma bëgg a laajte kooku ndax yow doo def street taxi, mu dem mu génn si ba pare boromam xëy na mu traitin la mu wax la after xëy na mu wax fa loo xam ne ah, mm-hmm. dafa nekk comme nit yi dañ ko kuma bi ñu we all know Gambia yeneen say, yi dangaa war dara ñoom ñu jël loolu liggéey mm-hmm. ko te boromam pour mu jël ko personal daal ndax loolu la dee daal si yu bëri na Admirable Elliot eh, last year during Ramadan, the madam on uh, eh, interview, uh, eh, the madam of Ramadan, free talk on Islam. Because man, the madam and at Lihore, Lilare and at So, madam and at the Benapa, and look at the Kuku, Mamone, a mosque committee in that particular mosque. Since I am and Manakono, wato mama wata da biyan kayan manyu muna lobu ga lafiya na ma lafiya kuma mara kana smoke question din what is the five pillars of islam amma obviously muslim din ka zo wannan kuwa tadi angka korong kana sanga dinga orang video di bidan di plu di dinga plu tadi dafa on akam dafa di di facebook di. ma ma wacce video di facebook naka ini. tari kos, tretina sama am ay dom mereka na respect ha diko diko na mara ko sen yoy di garam nga plu ko tan ci ci to moma o interview ma dom amma video di amma evidence ma o non mi tan be kok. ta ko comme ñu nekk ay ay di ci nga interview len ba pare mu koolaat la si guddi boobu ah booy yaa ma koola yaa ma de doo a baal ngir yàlla nga wàccee ko xam nga man ci sala man professeur la institution bi laa nekk di liggéey suma student yi duñ ko gisee noonu bëri na dafa uuga laa bëri donc amaa nga ma benn traite no tosi la am doon film lamen dama ñëwoon di xool accident bi li xew déga man duma dee film xale boo xam ne ne duma dee film nit ko xam ne ne wérut di ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಹನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಕೊಳರ ಕೋಪ ಒನತಾನ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮಗೆ ದಿ ಹೋಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹನ್ನ ಬೇರೆ ಮುದು di ಕೋಟೆ ದಿ ಗೆ ನೋವೆ ದಿ ಹೋಲ್ if i see myself on tv mana kada nyema pu interview la bro dama ñew pour xool lii du dama la interview yaa ngam accident ba wax tan njëriñ waa fa am lu ko am benn njëriñ maanaam non ay know why you walk i know why you this di i see myself on tv do you know do you know ko bro xam naa la maa ngi of agriculture ma wax everything bi li ma xam naa ko Gambia dafa tuuti dama doon wax sa pétu bi foofu laa dem defee ko mais on est yóbbu ma dem koyit te man dama la jigéen so dama ne am problème yooyu noonu but mostly ah, du dee bari du dee bari daal suñu du dee du dee moom I think so many people appreciate what I do Yeah. Why doing this type of things in Gambia? How difficult and how dangerous it is? is, is, is very dangerous because of Musanna numbers. It's very dangerous. Musanna numbers unknowingly. Because man, I don't smoke, I don't drink. Understand? So the man demon very cool really, di rekod. Cuma aja mata saya angge an. Dama dia buka boka, dama nyuruh mata marahat, hak maaf guys mangge video. Dama dia buka mesti amat drag ke attention. Kurma muna am lima buka. Menyemasa buka yang dia ya atas, ya yang dia ya sah, mana boleh kah? Bypass mako man man madu hini mamne ne di kore gut manen kore gana pa ko de ne ya boy boy li boko de kore ka boy di balela ala mm-hmm. so it's difficult it's difficult sometimes because there yeah, it's difficult so sometimes you you you see people will just see you and run away from the fact and that any water will just see you and run mais ñu ko pour approche nit ki wax ko sa soxla wala nga lapp ko yoon wala dañ mu naan la ne non mu naan la boy boy mo interview de nekk si nit But I'm not going to move. Then people see that hard draft and attention. So Lulu knows the difficulty and the difficulty. Well, I'm going to go to Then the van, pull down the pull down. Aha, so I'm not tired. So I'm not going to get that. That's my little bit on. So I will start. So can you say what that? So remember, I'm like you. You know the difficulty, difficulty. So Your mic. Kimunge on your mic. okay. okay. Okay. Uh, wow. Benin be like, I'm not kuma, manyo si bene question. I'm not kuma wande mune malachira luta dole like nga army barracks yi or police defi nii nii ngay hmm. laajte gaa because ñoom itamit they need happiness they need uh, you know because yena saa yi dañoo nekk si stress waxuma ko nag gaa yi ñoo ko wax su ma ko waxee dama ko ne maa ko wax hmm. waaye ñu ne ñu ne hmm. ñoom tamit dañ war happy because am na si ñu bari ñoo xam they are not happy you know ñu ngi am full stress waaye pour nga dem fofu noonu nek lu len api ndax Ya, nga xalat fa yooyu o mus nga koo def waaw dama day xalat façon yooyu ya xam Gambia so so so soo media there's rules and regulation when it comes to security there's rules and regulation when it comes to all those things sometimes they feel unsecure wala on ready not comfortable pour pour media bi dem fa even though ñoom suñ année seen press conference dañ ko dee contrôle ma xam na but I don't blame them kon loi bi dafa wax ne ne PRO bi rek a war a wax benn compte poli soldat yi tamit PRO bi rek a war a wax understand na soo dundee doo ko sama programme la dama dee tasee gaay ci camp bi parce que ma fay ma dee calibré nii doona tàng yooyu ñun ñëpp dañ koy def kon dundee bugaa wax because suñu waxee ñu wax lu yan nit ki dañoo saaga gaay xam nga Gambia ñu mënee dund yante ci jara soo fi interview benn police officer moo yaakaar la angale bi rom da nga koo saaga you got these people ñoom ko di nit suñ ko tuddee angale so loolu la gaay era gaay te tamit bugguma man dama interview police officer wala wala soldat nit saaga ko damu ñaaka liggéeyam understand wala nit yi xas ko demi ñaaka wala mu wax naka su dul high command am um, high command bi am um, problem um, ak ndax so so so loolu moo tax ma dee ma dee moytu yooyu noonu donc indépendant su jotee moom bis yaa next year insha allah maa ngi bëgg a request dina request pour ma match ak gars ñu xool ñu interview ak gars yi di di di siit yi nga xam ne rek ñu si gouvernement bi wala ñu si yeneen place yi di nga leen di bugg a humilier ok di nga leen di bugg a ok moom moom eh, xam na eh, ex ex officer la woon so loolu la ma ex suma côté woon ok exact exact so so so di nga leen di bugg oh oh waaw euh, you know comme gars yi noo leen ko xamee rek korka la euh, suñu one on one bi korka la ñu am tey comme du ma leen waxee rek nekkul ne ñëpp lañ lay invite si one on one bii nii one on one bi da nga nekk koo xam ne you know da nga saaf dëkk bi o yaa ngi def loo xam ne mu ngi bénéfice dëkk bi o yaa ngi def loo xam ne ñu bari see jànga so yow façon ñooñu dañoo invite suñu one on one bi fii waxtaan naa ñoom ñu jàngal lu bari ñoom tamit ñu wax ñu seen problème ak lan la gaay feel su lu gaay nekk di def so tey korka lañ am korka ñi xamee ko TV street talk korka street talk ñu foog ne network bi la sare xam nga network bi moom mi ngi am problème waaye ah, ñu continuer tuuti rek mm, because gis naa ne ah, yow tamit amuloo time ah, waaye mun nañoo continuer tuuti rek si kanam ñu mun a lifen korka beneen beneen question waaw beneen question bi ma bëgg a ici moo nekk korka wax nga si sa biir wax bi nga ne yow caméraman loolu mooy sa liggéey ak di edit ah waaye ñu ñëw ci tamit nga duga leneen loo xam ne tamit dafa mel ni rek dama jël lem rek yokk ko si sukur bi mu gën a ne korka working like si place yu mel ni ah, ban experience la la jox you know ak ban stage la la yóbbu daal. ok waaw yow dama am expérience yu bari euh, xam nga yan euh, comme ci TV benn télévision leen amoon ci muy jaatee askan si ci comme ñu ngi vidéo in digital format yoo xam ne ne ñu loolu leen jànga digital way te amuñ tam programme pratique soo léegi ñu ñëw xam am naa si expérience boobu noonu am naa si tamit euh, exposé am am am naa ci tamit euh, job security yéen comme ci job security mooy ne comme am na am na koo xam ne xam naa every end of month bi nu mu tuuti tuuti dinaa ko am salary bii nii understand and is a well structured euh, euh, structured company yooyu nii di mun ko te tamit am naa tamit seen activité boo xam ne ne mun naa advertise lu ma bugga ak advertise ak seen activité tamit so te mun naa tamit ñu bari mun naa ci tamit jàngal ñu bari so boobu noonu yëpp achievement la ci man waaw I call the ah, guy guy nyinge wan I'm not lower sibir fi na so suma help den si guys and wabi nyune yan mu nekk ak QTV ñu ne dégg na fay bi bari na ah doo tontu si ne fay bi bari na bari na bari na bari na torop torop torop ah moo tax fumneka ni kuneka nii nyofu nekk a ngi bu. okay gis <laughs> naa ah why question bi am na doole di korga.

waaw gis naa gis naa gis naa media Gambia media mm-hmm. Gambia bro billaay wala loona loona rek la media Gambia am muy muy ñu pentuur la problème la media Gambia amu dara amu dara loolu moo tax soo fa nekkee xamal ne jiilee ak jiilee ak nit ñi waaw media Gambia dara sutura la rek yàlla ma sutura yàlla foofu laa mën a waaw xam nga tamit uh, Gambien bi tamit luy lenn mooy problème bi Gambien uh, bi duy bugg a sponsor yu bëree bëree bëree bëri so loolu mooy problème bi uh, beneen question bu ma bugg a ñëw moo nekk podcast sa street talk bi mm-hmm. loo xam ne la ay nit ñoo nekk si gannaaw like sponsor ñoo mm-hmm. nekk si gannaaw o loo xam ne yow sa bopp yaa ko dépensal sa boppa o télévision bi moo ko sponsor non show bi télévision bi moo ko moom Ismaël Mbari TV station ñoom ñoo moom all all right all copyright am na soo understand nga copyright copyright yi yëpp ñoo ko moom sam euh, YouTube channel bi ñoom ñoo ko moom euh, caméra yi ñoo ko moom ñoo ci dee invest seen xaalis waaw show bi nag am na contest show bi mu ci ta daw two months mu ci ta daw two months fekk sponsor amul Seydou moom am na compte waa télévision daa dee foon yëpp ñun su ma tukkiwee sax pour di dem ab contre pour vidéo ko defar Seydou ñoom ñoo ko dee ñoo dee ñoo ma dee jox moto ñoo ma dee jox fuel di Seydou right now su ma wayee dama bëgg a vidéo base next day rek naa jox moto ma dem fa because Seydou rek day engage ay content ak some revenue so télévision daa ko moom it's not me man defuma ko benn effort su bëri ñoo ko nekk am naa éditeur bi am naa producer bi so man damaa ñëw rek ma ne tey lii laa bëgg a laajte ma dem ci caméraman bi ma ne ko ne fii la bi ma dem ma ma ma ko ma ñu ma ko ko ma jox ko édite bi kooku ko parce que suñu paree ñu yóbbu yóbbu ko programme ay review la fa war a nekk loo xam ne ne is not ah, is not public ko loo xam ne ne am na yu bëri ñoom fa nag yoo xam ne ne ñu doon ko dee wax waa dañ ko dee a génne pour pour xam pour bu mu bu mu jur leneen so ñu jël loolu noonu nag ñu soog a ko play suñ ko play ko YouTube so sponsor bi by city because i am full time staff under contract full time staff I have all the benefits from the staff there. We are not clear. We are not hearing clear. Okay. Yes. Yeah, okay. Okay. Ndax yéen a ngi dégg léegi now you try so that you will hear. Yeah. Okay. so the one that, uh, Okay. Okay, you know one little so, so basically, you know, the show is aimed by PTV. Hello, hello, Jerry. Uh, okay, linga won ni tammi fofu la bugal la ñoo la ni about because dem na ci sali fini gisuma like sa sa programme si nga fa def eh yo yeneen programme yo dé def ci street bi is it lo xamné euh come you, you are not allowed to do, do those kind of stuff or you'll like mm-hmm. because uh, mm-hmm. the money you see are ah, yeneng TV presenter dañoo jël seen stuff si ñu upload ko mm-hmm. wax ma YouTube I see ay TikTok yee stuff si ay that mm-hmm. aji waaw waaw non man I am I am I am free to do anything loo xam ne ne mun naa koo def suma own projet rek boppa suma own platform hoore managami bo hannde nere ayam ɗama busy a lot pour mo wara focus into social media always so man yeɗi post post always ah la so comme buguma buguma buguma am dose boo loolu moo tax ay always soo gisee post naa rek xamal ne very interesting wala comme dama fiir rek ci post ko dosit Euh, ba comme ñeneen ñu ko doon defee ma ko nag je dama lay firme social media am limite kon nag nga lay def mooy xamal ne someone is there watching so te tamit ah, bugguma tamit tuub rek di pause ma pause maybe dengan bilang kalkuluwa. Mga kadati sa kadi. Nasa pinsar lahan ideal, koordinated and responsible. So, lolo mo takon kumaday gusto post. Wag mo mapos na cuma no. Kasi si Aaron Matara, muna ang suma unsan ay, muna ang suma everything. Wow, wow, wow. Okay. Uh, question ya. din mo ni ka. Na kor ka dang di dem si Kowi tamin nga def street talk bi fofu nonu. Ta tamin su fekke yang ko def. Ndax like danga dee dem place yoo xam ne sa bopp xam nga ne these places am um, dañ war develop nga dem ngay des street talk bi foofu noonu pour ñuy seetaan tamit ñu ci saale loolu pour gars yi tamit ñu fàttali ko ñooñu. Hmm. waaw dama dee dama dee dama dee def lii muy uh, soo ni right now uh, for the past two months programme dama mon nationwide pro dama dee dem nationwide pro time to time dama dee laal distance yëpp foo xam ne ne moto mun naa faa jaar daal dama dee jaar dama dee laal lu ñu ban te su ma demee dama dee focus into different different programme te su ma demee tamit ma gis fa leneen dama ko dee jot down wala ma vidéo ko ma ñëw ma jox ko news department gaa yi gaa yi gaa yi def ci jéego waaw waaw gaa def ci jéego eyaa ko so loolu moom loolu moom dama ko dee def waaw dama ko dee def dama dee dem ma gis beneen place yi ñeneen sax dama dee pressé ñeneen dama dee pressé ñeneen ñu naan ma ne ah ah korka léegi vidéo suñu ko waaw so kon loolu nag leen vidéo suma ko neex na ma torop so tax na ko dee def waaw ko dee boo gisee ma la yow sa euh, ñu bari ko dee seetaan comme nu ma la ñun ñu ñun nekkuñ Gambia mhm. waaye dañ ko dee seetaan mhm. am nekkut euh, comme YouTube lañ ko dee gën a seetaan nag YouTube lañ mhm. so boo gisee xam nga yow yaa ngi def show bi waaye yow xamuloo ñaata now thousands of people know Boseta. So mm -hmm. the same uh, the same to Gom Gambia tamit su ñëwee si society government i am not dëkka yoo xam ne xëy na ñoom uh, xamuñ ñooñu seen problème like that su ma government help bi laa so suñ ci you know yooyu noonu xëy na ñu ne waaw ndekete ñii nii nii mel you know you loolu moo tax ma la ci façon question You know. waaw waaw loolu la loolu la dama dee def loolu noonu moom dama def dama dee gis tamit loolu loo xam ne dafa rong ci dëkk Okay. il faut que lu dama ko dee dama ko dee nataal ma binda ci ma comment ci man ci ma own gis-gis ma puus ko loolu moom dama ko dee def lool waaw loolu moom dama ko dee def yeah loolu moom dama ko dee def so hmm. ok Parker beneen beneen question bi mu ngi ñëw si walking ah si télévision hmm. like QTV ah mu nekkal loo xam ne hmm. uh, buguma buguma ma jahasela yenen télé- beneen télévision bi la waaye ah, mu nekk loo xam ne daal Gambia la kenn du dee bugg gay? seetaan gaay léegi gaay yi so QTV hmm. rek lañ dee bugg seetaan so walking hmm. uh, in type of uh, type of television ban hmm. feeling la la dee jox yow you know waaw ya, jox na ma jox na ma a very good feeling waaye ya, jox na ma tamit very tough decision while Bente, the man mentioned, the man maintain every good relationship with any other television. Understand? Mama, mama, mama, TV. Understand? Liggéey laa fi am. Mm-hmm. su ma liggéey dama ko def as expected. national duty ci koole I will do it as expected. Understand? si place laa nekkoon ma jógee ko ma ñëw fii. fii tamit mun naa ci jógee dem feneen wala ma ubbil suma bopp leneen. Understand? so dama dee feel happy. Parliament is still superior ya, than it. In CNN TV station. Leave remember that Kubrick, Nima want to footage. Kaya man mangi ñew lit, ma dem ci benen télévision mana boy ah dama ya, ngeen dégg may ma footage. Ñu may ma. Dem do ñew lit, ci prem ak ñu tassé ñu ah may ma li ñu may ma. Dama lay def sen télé dama lay duggal. Sen station fu ñu ngi duggal yenen télé dama ko lay duggal. Ñom tamit di tentu. Ko gambé rek tuuti. Man suma liggéey kay di tax dama hulé ak yow di ko sof yow nga am di gën di gën liggéey boo bi dafa dem daa dem ci kan? Suman, su man ngir liggéeykaay wala politique wala mbooka wala tribe wala religion du tax ma xulyaa kenn dama anda yow ya, mun war a àndee ak humanité so yeneen ini yu bëri suma di stop naa yeneen télé yu bëri onatana bot ben tey ñooñu suñu soxlee assistant am na yeneen télé ñu ngi ko jaruma turatu dama lam dee assist they am very good in programming also tv programme en comme liquide kono len nde asi kono len nde wahal mane jogoɗo anna sen nomba ɗe ɗe kampe dema sili jogi donc konen télé fof kadi ko kampe ɗiman ataya déjà man ɗum rona ataya man kadi ɗiman ataya kono kan so lolu mum yeb pour lalla pour mineka deena hon naati jogi tawi ɗen konen so lolu la so i have no problem with some other limi defan wuti nak but am cool Thank you very much for that. Uh, loolu nekk na loo xam am uh, journalist rek sax waaye comme koo xam rek yaa ngi liggéey uh, place boo xam ne waruloo rëy waruloo you better than everybody or waruloo foog ne ay enemies leen so yoolu ñu ngi la faa thank you very much. Hmm. waaw beneen question bi kooku is about ñun gis nañ ne yow sax show yu bari. yo koor ka xale yi sax suñ la gisee macha allah dañoo lifin koor ka koor ka yow nga dem soo demee si kaw bi nii nga gis yeneen xale yi seen living condition loolu hmm. yëpp. I feel very bad especially su ma demee off country ma gis xale yi seen schooling bi ku gars di jógee dem school wala ma tasee yeneen xale ci street bi kala hmm, nga gis bële moom garaay rek. ba dem ko mata bi day day fancy tamina I was happy to talk to him, but not nice to. Why? Kung understand mo de. mu ne dafa Right. dafa happy torop Why? you know uh, you were not nice to to them so I'm not na i yenn saa busy Yes, I no, no, no, no, no, no. I, I don't think so. You know why? I don't think so. You know why? Mm-hmm. I have a brother. I have a brother, taxi driver. Lin overla duru. Overla. Niti den ko den bit tok no mala. Okay. Okay. kana? Yo yo yo. Niti den ko den bit tok. Dina press na kala ngandi na mawalu. Den do kan dai alba mo to kasi man. Mo yonga brother. Wa mo situ amba generation na to. Amom. He into ko mon da to da. Da da da da reserve liggéey man dama doon am problème parce que nekkee maa ngi liggéey ci biti xale ñëw ooma wala suma saan ma ba ma ma bañ koo liggéey dama dee am problème boobu xam naa léegi keneen la gis léegi ñu bëri dama leen dama mbiroo gars yi ci dëkk bi de wala tamit ñu mu fekk ne tontu naa ko fekk maa ngi ci leneen tamit léegi tamit def ñeneen ci wala ñeneen ñi mun na laa oo in the same fekk yaa ngi focus ak yi ak wala yaa ci leneen so mun naa tamit dégg ma but I don't think anyway yéegi ma ko comme sino ko dawna nawna ko nama balal wa non la yera say yow man mun naa nekk di waxa yow fekk suma xel di ma aha yaa ngi yaa ngi yaa ngi gis beneen beneen bi ci ci mu ne maka waaye waaye it is good tamit nu ko waxee ah, ne because ku la bëgg rek mooy wax so yooyu noonu so ah, ah. Yeah, yeah, yeah. I met him and I said hi to him, but the way he answered to me was, was okay. Now, but uh, sorry, huh? Ah xam next time soo dajee record kooka téye ko nga xug. waaw waaw waaw baala ma du amati. waaw. waaw loolu la ndeysaan ñu ne rek ñu dem. léegi ñu continuer si lu ma lifin noonu about xale yi soo leen gisee. xale yi hmm. so so so yi nu ma leen gisee ñu ngi bad condition. bro gis nga Gambia suñu moytuwute. ñun ñun